sant ak ngërëm ñeel na mbokk yi bàyyi xel leeral TV xibaar yi kon dañu koy tàmbale ak na ma leen ko junjee ca bopp bi lu ñeel mbëkk mi immigration illégale wala clandestine nekk loo xamante ne bi coow laa ngay wéy di desub xam bin ba tey addu yi bëri na ndaxte Moussa Fati njiitalu ko groupement avenir euh, et jeunesse et avenir ca Touba Seras Dalifort àdduna ci niki demb bi mu doon amalab ndaje ak ñi nga xamante ne bi rek ñoo di ay soxna bokk ci groupement Calabas solidaire ca diwaanu dalifor moom nag àdduna ne nekk na mbir mu jéggi dayo wante itam jor mi ñu dénk wàllu euh, lii di euh, ndaw ñi ak itam ki yore wàllum xëy bi na dimbali ndaw ñi bu ko defee ñu mën a toog ci réew mi daan fii seen doole ñu teewlu ko moom Moussa Fati ci micro Leral TV. ñun nag groupement jeunesse dafa taxaw pour jàppale jeunesse bi am ay orientation si côté formation ak côté liggéey loolu moo tax ñuy jël avec nos maigres moyens di ko déployer si dëkk bi fépp si fépp si Sénégal ak fépp ci àdduna bi. suñu objectif nag lenn la mooy dañoo jëm dañ dëgmal seen élection présidentielle est temps jeunes yi mën a yeewu il est temps ñu boole suñu doore xam kan lañ bëgg a fal xam kan lañ fiy teg xale yaa ngi jël géej gi xale yi amatuñu liggéey xale yaa ngi dee si àll bi il est temps nag suñu ministre de l'emploi ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour mu focus ci jeunes yi jaru ko yenn en fait yi ñoo soxla fast track léegi ñu utal leen ay emploi orienté leen ci ay formation man loolu laa gëm si tànk yooyu la ñuy dox képp ku ñu mën a jàppale si yoolu ñëwal ñu boole suñu doole pour ñëw teg la mu ngokk di kàddu yu Moussa Fati moom moo jiite groupement avenir et jeunesse kon ci diwaanu Dalifort Seras dañu àddu mbokki ci xibaar loo xamante ni bi rek ñeel na 16 jours d'activisme nga xamante ni bi rek ministère bi ñu ko wàllu jigéen ñi famille ak protection euh, des enfants daal dina koy lancé ni ki démb muy loo xamante ni bi rek dañ ciy xeex lépp loo xamante ne bi dafa euh, soxal wàllug euh, li ñuy wax Euh, violence basée sur le genre nga xamante ni bi rek ñu bari ci euh, soxna yi dañ ko faral di wanteel ay statistiques nag jot nañ ko fësal wax ne lu toll ci téeméer boo jël fanweer ak juróom ya dañu koy faral di dundu ci euh, jigéen ñi le faatu Diadé Guèye moo xam la yooyu lay xibaar démb bi ñu lancé boobu lay mbir ñu teewlu ko ci micro Ramata Sarr ak kii nga xamante ne bi moo di Mouhamed Sané. la mënuñoo wax en réalité même bu ñu leen leen wax loolu bu ñu leen jéem wax loolu duñu wax c'est ça la vérité nit nag boo bëggee faj da wax problème yi da ngay poser le doigt ci plaie bi boo ko bëggee faj mais tant que ñu ngi koy raaya raaya rek on va se réunir chaque année pour lancer sax et c'est ça qui est parce que am na koo wax sànq waratuñu toog di lancer même ay chaise d'activisme war nañoo dépasser foofu. mais tant que li ñu waxuñu ko nous allons continuer à lancer ce type d'activité au Sénégal et c'est dommage. mu ngook dañuy wéy mbokk yi wax ci xibaar yi wàllu violence basée sur le genre nga xamante ni bi rek jigéen ña ngi koy wéy di dund waa AJS di association des juristes sénégalaises joxe nañu lim nee nañu rek ci atum 2022 bile. gis nañu téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti soxna yoo xamante ni bii rek ñu ngi leen di yekkataan wante itam di leen métital muy xeetu violence yoo xamante ni bii rek ñu ngi koy faral di nemmeeku kookee di docteur Zeynab Kane moom moo ko xamle moom vice présidente bu AJS démb ca diwaanu Kër Massar bañ doon amal ab bëccëg jagleel ko waxtaan muy journée de consultation juridique ci diwaanu Kër Massar ñu teewlu ko moom Zeynab Kane ci Leral TV waa am nañu ay chiffres ndax boo xoolee premier décembre premier janvier ba 30 octobre bi jot nañ ci 829 cas de violence maanaam ci mettital waaye dañ koy pàccal ndax boo defee 829 cas de violence violence sexuelle moo ci ëpp maanaam violence yu jëm ci wàllu sëy moo xam viol wala pédophilie wala détournement de mineur waaye violence économique aussi am nañ ci ay 200 cas li ñu tuddee violence physique euh, mooy xeex coups et blessures volontaires meurtre wala yu mel noonu loolu tam am nañ ci 132 cas am nañ également violence psychologique yoo xam ne am nañ ci quelque chose comme ay quatre vingt et quelques cas loolu lu muy wane rek mooy mbir mi mi ngi ci biir gox goxaan comme mbir mi mi ngi si suñu biir nan la ñuy def ba boole suñu doole ba mën koo ba mën ko sori ba mën ko dàq solution yi ñuy wax nag mooy euh, li ñuy wax rek prévention d'abord maanaam moytu moytu ku ne sàmm sa bopp sàmm sa njaboot moytu xoddeeku bala ngay lakkale beneen bi ci des tamit moom mooy nan la ñuy def ba ñuy def ñaawtee fi ñu mën leen a jébaane jébaane leen yóbbu leen fa mbaxana doone benn ci yoon ba nga xam ne daan yi nga xam ne moom la yoon teg ñu mën ko teg seen kaw waaye beneen bi ci des moom mooy ñu lëkkale suñu doole maanaam boole suñu doole gën a waxtaan euh, parce que ñuy def ñaawtee fi jógewuñ fenn ci biir kër yi lañ nekk mu ngook di kaddu yi mu euh, Zeynab kan docteur di vice présidente bu AJS xibaar yi dañ koy toftal mbokk yi comme ni ma leen ko junjee ca bopp bi Mali ci ay doomu réew Sénégal yoo xamante ne bi rek ñu ngi ko fay yeewoo di ay ressortissants sénégalais ñoom nag la ñuy dund jafe na lool ndaxte ngir jot yi kayit nekk na lu leen metti yitteel boobu nag nekk na mbir moo xamante ne bi euh, ñu ngi koy daal di euh, sàkku ci nguur gi ndaxte ci diwaanu Bamako amuñu fa consulat bu leen di mën a dimbali ñoom nag dañoo samp ab euh, kuréel duppee ko mouvement Fal Amadou Ba loolu nag ñuy sàkku bokk na ci ñu am ay sécurité bu doy maanaam kaaraange ca diwaan bi ñuy dund ndaxte nekk na réew moo xamante ne bi rek daanaka bëri na ay doomu réew Sénégal yoo xamante ne bi rek ñu ngi fay yeewoo loxo su ne ñoom nag yore seen kaddu moom mooy euh, ki ñuy wax euh, Daouda Diokh di njiit la ñu teewlu ko ak Ibrahima Khalil mais ñun dañu gis ne dafa jot ñu war a jóg ah li nga xam ne moo fi nekkoon wala gën ko dooleel pour mën a pour mën a gagner élection yi ah surtout luy jëm ci Mali surtout luy jëm ci diaspora bi mais tamit ci ci ci àdduna bi yëpp. xam nañ li ci jàmm suñu tolloo bitim réew di gis Sénégal nii liy yi di doxee dañ xam importance bi nga xam ne si jàmm suñu gisee nag suñu suñu suñu suñu euh, benn candidat boo xam ne moom lépp lu mu woote jàmm fay laajte jàmm fay def euh, waxtaan bi sax ah ci boppam da ngay sentir nitu jàmm la te nitu jàmm moom rek moo mën a saxal jàmm fu fu nekk. bu faloo comme lépp comme ñu sénégalais ñu fa nekk ñëpp euh, déjà consulat bi. ñooñu nuñ koy réclamer depuis ay pour mu mën a permettre euh, sénégalais yi ñu fa nekk ba ñu ñëwaat pour defaraat seen i ay passeport seen i ay seen i ay euh, euh, carte d'identité mais tamit jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di liggéey luy wàll ci transformation li nga xam ne alimentaire bi ñu mën leen di jàppale ak fond fond financement yi suñu doom yi nga xam ne tamit ñuy yeewoo foofu di am ay ay ay notes yu baax ñu mën leen financer ci bourse yi. ah comme ni ñu yeneen dëkk yi di amee mais tamit transporteurs yi surtout ñi nga xam ne ñooy nekk di def ko ak euh, euh, Dakar ñu mën nañ jàppale ci sécurité bi parce que sécurité bi xam ngeen ne su ñuy wax développement dëkk dañuy wax ci sécurité su ñuy wax développement euh, ci naataango ci mbopp nit booma il faut mu ànd sécurité donc ñu ngi ñaan. dañuy àddu bokk yi ci wàllu mbay mi di agriculture ak joroon bi ñu dénk gouvernement bi di premier ministre Amadou Ba digle na juróom-ñeenti diggé yoo xamante ne bi rek jagleel na ko secteur mbay mi ndaxte ci ab bu ñu amaloon di conseil interministériel ci wàllu campagne bile daanaka rek moom jàpp na ni ci lu soxal campagne euh, njaayum gerte gi war nañ jëli ndogal bu ko defee mu mën a ñoŋ wante boobu leen ndaje gis nañu fa ay acteurs yoo xamante ni bi rek seen xel màcc na lool ci wàllu mbay ku ci mel ni Samba Ndiobène Ka joroon bi ñu dénk wàllu wu ni mel nee na rek am na ay jéego yu am solo yoo xamante ne def nañu ko ci boobu le secteur tax na ba lu ëpp benn million ci tonne ci gerte daanaka bay nañu ko ci atum ren ji ñu teewlu ko ci bile compte rendu bu Ramata Sarr téeméeru milliard la nguuru Sénégal jagleel campagne gerte bu ren bi production bi mën nañ ko xayma ci un million sept cent mille tonnes ndax mbay mi lu am importance la ci réew mi mën nañu xayma sax daanaka genn wàllu askan bi yëpp ci mbay la ñuy dund wala ci mbay la ñuy yëngatu. Eliman jawriñ yi di Amadou Ba ci juróom-ñeenti ndigal yi mu joxe mën nañ ci ràññee njëgu kilo gerte. bi président Macky Sall ñëwee ba tey nag at bu nekk dafa am lu ñuy teg ci njëg li bi yoon am ci lu ñu ci teg it ba nga xam ni jàpp nañ ni gerte gi liñ ko war a jaayee du yées warut a yées warut yées juróom fukk ak juróom-benn. ci neuf recommandations yi ñu ràññee ci pàcc bu am solo di fexe ba aar semence gi. ministre des forces armées bu intérieur nañu nag yokk kaaraange frontière bi ndax bu ñu toll ci yu mel nii ñu bari dañuy fexe génne gerte gi ci réew mi kon loolu si lu ñu war a seet la ndax daan am te ren jii war nañu fexe ba gerte gi bañ génn dem ci yeneen réew yi te jaarul. fi war a jaar yëpp. ci biir ndaje bile ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi itamit yëkkati na ci ay kàddu. wax leen déjà bi muy ñëw ci bopp réew mi laataa muy ñëw mën naa ne fa laay njëkkee en 2011 su ngeen xoolee production wu gerte soo ko doon xayma mu ngi toll woon ci 527 000 tonnes tey ci tey ñoo ngi wax déjà campagne bi wees ñoo ngi wax 1 million 500 000 tonnes ci bu wees bi. ren ñu ngi espérer un million sept ci fàttali 30 novembre bi ñu jëm lañuy door campagne bile bu ñu sukkandiku ci ndigal Eliman jëwriñ yi nemmeeku nañu ci subvention d'engrais bi ab yokkute bu am solo par rapport ak juróom at yi weesu lépp rek ngir Sénégal mun a moom boppam. sant ak ngërëm ñel na leen Ramata Sarr Abdoulaye Fall nekkoon ci ndaje conseil interministériel boobule. xibaar bu neex boo xamante ne bi yéen ñi faral di jëfandikoo woyofal daanaka di ngeen ko jot léegi-léegi muy woyofal bi nga xamante ne bi ñetteelu tranche bi dañu koy daal di dindi ba mu set wecci loolee xibaar la bu bàyyeekoo ci Antoine Félix Diome moom mi ñu dénk wàllu pétrole ak wàllu énergie ci réewum Sénégal loolee nag mu ngi ko yëkkati ci bi ñu doon amal ab vote budget bu secteur boobulee daal di koy xayma ci lu ëpp juróomi téeméeri milliards ci suñuy koppar Antoine Félix Diome ci micro Aminata Traoré ak Ñaañaka avant ñuy ñëw fii tey ak même fan yii yëpp dégg ngeen wax yi ci cher ñuy wax ci wàllu courant bi wal ñii di wax ni ñoom dañu bëgg a dellu poste paiement ak yooyu mais woyofal ni ko baat bi wuyoo ngir woyofalal askan wi ni ñuy mën a jëfandikoo courant la ba noppi tamit li ñuy dugal moom la ñuy jëfandikoo maanaam euh, boo dugalee tey ñaar fukki junni loolu ngay jëfandikoo boo dugalee ñaari junni loolu ngay jëfandikoo boo dugalee fukki junni loolu ngay jëfandikoo waaye mu doon loo xamante ni tamit moo gën a yomb ci ni nga xamante ni moom la ñuy facturer te par weer lañ koy defee weer bi bu ñëwee dangay ngay recommencer à zéro alors euh, mu amoon nag benn tranche bu ci yokku boo xam ni nit ñi dañu xawoon seetlu tuuti ni euh, euh, factures yi wala fal bi ni muy courant bi di demee xaw na gaaw tuuti président ni dañ ko xool bu baax biñ ko xoolee mu digal ñu ni ñu nañu dindi troisième tranche boobu donc woyofal bi day dellu fa mu nekkoon may leeral foofu tamit ni muy woyofal wala post paiement état bi dafay gunge ñii nga xamante ni ñoom ñooy client wu senelek avant dañuy wax ba tey ci wàllu courant boobu le ndaxte ñi koy faral di joxe ci diwaanu Sénégal di waa Sénélec ñoom nag nañu liggéeyee nekk na lu yéem askan wu baree bare ci diwaan bi lee tax na ba waa lekk nekk ca diwaanu Ndar Géej ca Saint-Louis amal ab journée jagleel ko porte ouverte maanaam ubbi seen buntu askan wi ñëw mën a xool naka la ñuy liggéeyee ci boobule bërëb nag nekk na ndaje moo xamante ne am na ay corps de yu bëri yoo xamante ne bi rek wane nañu ko ngir askan wi mën koo bàyyi xel bu baax a baax wante ndaje la boo xamante ne bokk na ci seenub xayma goo xamante ne bi rek nañu ko ngir gën a mën a liggéey ci ci li nga xamante ne bi rek moo ñeel action yu faral di bàyyeekoo ci direction des ressources humaines bu boobule entreprise dañ ciy teewlu Alioune Badara Samb di gouverneur bu Saint-Louis ci micro El Hadj ak ak euh, ki nga xamante ne rek moo ñu ndaw suñu ndaw nekkal ñu ci diwaan boobule. volonté boo xam dañ ñaan yàlla énergie doon. moteur du développement Senelec am ci rôle bu am solo parce que yematul léegi ci produit courant moo ngi ànd di lëkkaloo ak des investisseurs pour gën di yokk centrale yoo xam ni du pour courant bi ñuy jëfee rek mais courant bi nga xam mooy coq développement kon loolu na bu amee dana jaadu en tant que représentant de l'État ñëw fekkee lu ñu xat-xat journée porte ouverte yi mais surtout ñëw gën leen a ñaax gën a wane suñu taxawaay ci côté euh, alors euh, travailleurs yi nekk seen rek muy ay jàmbaar wax dëgg yàlla yu ñuy def ba euh, courant bi bu coupé rek daal di taxawaat passé nañ ay jamonoy production ay euh, yu am délestage wala faiblesse de production loolu lépp day jaadu nag bu nit organisé yu ne nga ñëw fekk seen kanam marqué leen solidarité mais xamal leen ni ñun ci lañ bokk seen mbir nag boo ci bokkee waroo xaar sax ku la invité. bu noppee ci loolee dañu àddu ci njàng mi ak njàngale mi ak ki nga xamante ne bi rek moo son mouvement bi ñu dénk. arabophone yi ak yi nekk ci diwaanu Sénégal maanaam ñi faral di jàngale arabe ci Sénégal ñoom nag li ñu sàkk moom mooy ñu amal ay université islamique ci réew mi lee ndaxte ñoom jàpp nañu ne ñoom euh, li ñu gis moom moo di euh, wàllu arab bi dañu ko euh, daal di ñàkkal fayda ci diwaan bi le wàllum njàngum arab kon nekk na loo xamante ne bi rek ñu ngi ciy sàkku gouvernement bi mu ñëw taxawu leen ndaxte gis nañu ne étudiants yi bu ñu soxlawee ay financement ñoom ñi jàng arab ba noppi daanaka jafe-jafe yi neen lañ ci jànkuwanteel addu ñu itam lu ñeer xeex bi dox diggante Israël ak Palestine ci diwaanu Kër ma Masar lañ ko doon waxtaanee ci teewaayu Ibrahima Khalil Diémé ci ab déclaration bu ñu jégleel tasxatu xabaar yi la mouvement des arabophones du Sénégal daal di jébbal ay càkkuteef état bu Sénégal naka noone ci jano ak tasxatu xabaar yi boobule ay poñ yu bëri daañu ko fa yëkkati lu ci mel ni ubbite ay département d'arabe ci mbooleem université yi nekk fii ci Sénégal waaye tamit ju tabaxal leen benn université islamique fii ci réew mi. Eh, tey jii daje woon nañ fii. bokk na ci tomb yooyu nga xam ne bëggoon nañ ko fësal mu àgg ci noppi ñépp euh, ouvrir ay département arab maanaam ubbi ay departement arab yoo xamee ne nii dañ koy ubbi ci université publique yépp comme ni mu amee ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar à défaut d'avoir une université arabo-islamique ñoom arabisants yi lee di ñaawlu it amit anam bi nga xamante ne moom lañu leen di beddi rawatina ci prise charge ci wàllum seeni càkkutéef yi loolu sax moo waraloon ba ndaw ñu bëri di jël yoonu mbëkk mi. ñoo ngi sàkku euh, ñu ubbil arabophonie wala les diplômés en langue arabe. ay projet yoo xamee ne nii danañ leen ca mën a dugal ci wàllu mbéy ak ci wàllu sàmm ak ci yeneen ak yeneen ak yeneen. bu ñuy dem ba gis suñuy rakk di dee ci géej gi ndax ñàkk espoir ci ñoo xamante ni tey demoon nañ ba ñu orienté leen université Anta Diop ñu ay diplômé langue arab loolu dama ni dafa war a dakk mouvement arabisant yii lee di ñëwaat it ci situation mi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku diggante Israël ak Palestine te it dànkaafu nguur Sénégal mu intervenir ci. gouvernement wu Sénégal ak képp ku di sénégalais li nga xam ne mooy xew diggante Palestine ak Israël ñu taxawaat ci taxawaat bu gën a ëpp solo ngir li nga xamee ne nii kët ma ngay xew fee ca Palestine am xel mu rafet nangu ko. gannaaw ay fan rek des ngir ñu amal seeni congrès mi ñu amal ci weeru décembre mi ñu dëmmal mouvement arabophone yi lay nekk fii ci Sénégal di jébbal ay sàkkuteef nguuru Sénégal te it di ko woo ngir mu jël bépp matuwaay bépp matuwaay ci anam bi nga xamante ne moom lañ nekkee ci réew mi. a Khalil Jebe ñu lay sant di la gërëm mbokk yegg si nañu ci ni ma xabaar yi taxaw seet seetlu bés bi. jagleel nañu ko seddaay bi nga xamante ne bi rek yéen a koy nemmeeku ci diwaanu Sénégal tax na ba ñi nga xamante ne bi rek ñoo di nappkat yi ak itam ñu yëngu ci njaayum produit ñuy faral di jëlee ci géej gi ñoom nag ñu ngi ci gis seen bopp ndaxte gis nañu ni période bi la ci la seen liggéey di gën di dox Ndeye Fatou Diop Basirou Faye reportage ci lañuy ëpp seddaay bi mu ngi dugg si nànk-nànk fii si senegaal mu nekk nag période boo xamante ni ñii di nappkat yi ak jaaykat yi dañ siy gis seen bopp bu baax ndax bu ñu sukkandikoo si seen i kàddu si la jën yi di ëppee. ñun noor bi moom si la ñuy liggéey moom jën si la ëpp jën daal nawet bi du ñu jën waaye noor bi moom dañuy am jën. dinañu am jay am wóyang jën yu baax daal dinañu am seddaay bi. waaw yaakaar nañ ko quoi parce que jamono ñu toll nii. gis nañ ne jën bi mu ngi xaw a dugg ci ndànk-ndànk mais bëreegul noonu quoi. ci noonu jëwrin bi yor wàllum hygiène ak sécurité quai de pêche bu yoof waaye itam nekk coordinateur national bu CAPS daal dinay leeral li waral jën yi di gën a bëree ci seddaay bi. période bi dafa di période boo xamante ne géej gi day raxas. raxas bi muy raxas nag mooy nawet bi lay jël génnee ko ba mu set. préparer ay ginnax yu mag mooy vague yu mag yooyu ngay faral di gis ginnax yu mag yooyu muy préparer ak ngelaw li muy àndal. mooy def signalement pour wane ne nawet bi jeex na lolli bi jeex na ñu ngi dugg noor noor nag mooy période seddaay bu ñu koy dugg nii bu les kenn nax mool yëpp dañuy am yaakaar ne après poisson noble lii day am. seddaay bi jën yi nekkoon biir géej seddaay bi dëgg duñ ko antal parce que naaj bi ah bon euh, euh, ndox bi température bi ñuy soxla pour ñu am ko ñoom ils ont dañuy mujjee obligé wàcc si. tefes mooy waral foo daan dem ay quinze kilomètres 1 kilomètre même cent mètres sax des fois mën nga fa taxaw. jën moom moom fi mu toll nii instant yi ñu toll nii jën day gën a manqué waaye dootul bareet ndax mool yi ko daan gëtt sa genn wàll yëpp ñi dem nañ ñi àgg nañ ñi àgguñu. mais seddaay bi saa ñu toll nii dafa dugg ci bees xam nga te période yi nii ngay gis booy xool gaal am na quoi mais mool moo parce que gars yi bi ngi Espagne xam nga loolu. genn wàll gi ñu ngi ci géej bi. mu nekk période boo xamante ni ñii di nappkatu jën yi ak jaaykat yi dañ siy gis seen. bopp bu baax Ndeye Fatou Diop euh, ñu leen di sant di leen gërëm ci reportage bu am solo boobu lee mbokk yegg si nañu ci ñoom waxtalu xibaar yi benn ponk la muy xibaar yi ñeel wàllu bitim réew. dañu koy tàmbalee ca diwaanu Sierra Leone foofee nag président bu Sierra Leone moom nag daanaka dafa taxawal ab couvre-feu national li ko waral moom mooy ab congo joo xamante ne bi rek dañu ko nemmeeku ci caserne militaire bi nekkee fi ñuy wax Freetown te ñu ko def ay nit la yoo xamante ne bi rek dañoo ngannaayu wante itam muur seen kanam kenn xàmmeewu leen loolu nag moo tax ñu daal di ut ab couvre-feu ngir yokk kaaraange gi ci askan wi di sàkku itam ñu daal di toog seen kër loolu nag gouvernement bi dafa xam le ne jamono ji nag mu ngay def ay jéego ngir dal mën a am ca diwaan boobule ay vidéo yoo xamante ne bi rek dañuy wone soldats yi nañuy duggee ca dëkk ba ngir daal di euh, fësal ñàkkum jàmm gi loolu nag nemmeeku nañu ko ci jamono ji nga xamante ne bi CEDEAO dafa daldi di àddune mu boobu lay acte ndaxte jàpp na ni tentative de perturbation la jëm ci wàllu jàmm ji nga xamante ne bi rek dañu koy nemee ko ci réew ma wante itam nee na lépp loo xamante ne bi soxal na changement ci gouvernement anticonstitutionnel àndu ci benn yoon na Madagascar foofee itam gis nañu ne kookee ngeen di seen di euh, Andry euh, Rajoelina Rajoelina moom nag tabaat nañu ko ci premier tour maanaam ci jongante bu njëkk bi ci élection présidentielle yi nga xamante ne bi rek amoon na fa fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre bi ñu nekk moom nag ci élection yooyu le gis nañu ne waa ku jegi dañoo gedd bokkuñu sa loolu nag moo tax ba ñenn ci ñi nga xamante ne bi rek ñoo bokk ci opposition bi daal di sàkk ñu neenal boobu la élection cour constitutionnelle dafa wala sax ki nga xamante ne moo di euh, commission électorale bi dafa daal di euh, fësal boobu la euh, xibaar daal di koy dëggal bi ñu xaymawee nag gis nañu ne lu ëpp 58 pour cent moom Régine Régilina daal dina koy am ci yooyu lay jongante te gis nañu itam ne atub 2018 moo ëppoon fop ñi nga xamante ne bi rek ñoo daal di dugal seen carte maanaam ñoo élec ñoo bokkoon ci élection yi ndaxte atum ren ji gis nañu ne téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom benn képp ñoo daal di dem vote ji dañu àddu leneen ci xibaar yi wàllu bitim réew Gaza foofee nga xamante ne bi rek gis nañu ne ab cong bu yees gis nañu ko fa niki dimanche bi lañu ko fësal waa Hamas ñoo fa daal di dugg daal di fay defati seen eh, njombe muy diggante Israël ak Palestine coow li fay am ba tey di eh, wéy di desub xambin ñetteel boo xamante ne bi rek ci ay fan yoo xamante ne bi rek gis nañu ne waa Israël ñu ngay di def ab eh, njombe ci diwaanu Gaza boobule loolee daal di fësal rek ne am na ñeent ñoo xamante ne bi rek dañoo ñàkk seen bakkan di ay casque yoo xamante di ay soldats yoo xamante ne rek lañu fa nekkee ay camion yoo xamante ne itam dafa bàyyeekoo ci ñi faral di dimbaliwaate muy aide humanitaire gis nañu ne ñu ngay wéy ba tey di dugg ci Gaza boobu lii nga xamante ne bi rek xibaar la boo xamante ne bi rek jamono ji ñu ngi koy fësal bu baax bax baax ci euh, këru tasukaay xibaar yi mbokk yi lii moo nekkoon xibaar yi tey jii ci euh, dibeer gile yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre atub ñaari junni ak euh, ñaar fukk ak ñett ma amoon mbégte doon ko jottali askan wi di ñu bàyyi xel yéen ñi toog seen studio di ñu wala seen salon di ñu bàyyi xel ci Leral TV xibaar yi daañu dikkat kon bu 20 19h jotee ci kàllaamay nasaraan ak euh, Ibrahima Khalil Diémé jaajëfal bu baax a baax euh, ki nga xamante ni bi rek moo di Mariam Soda Ndiaye mi nekkoon ci réalisation bi Alioune Badara Cissé ak itam Mohamed Ndiaye ci xarala ga jërë ngeen jëf ci teewlu bi. Tu es au courant de ma nomination Non. C'est sur leral.net.